Monsieur le ministre de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la jaar yow ci àjjuma ji di nuyu monsieur le ministre du travail di nuyu directeur générau yi fi toog yépp di nuyu cabinet ministre bi euh, di nuyu suñu collègue député yi monsieur le ministre comme nous le suñu collègues yeb waxé ñu ngi lay félicité bu engagement ci fidélité mais aussi ci sa loyauté à côté du président Macky Sall monsieur le ministre nous ngi lay aussi ci ce niveau de collaboration bi bonne collaboration envers vos collègues ministres mais aussi envers vos euh, directeurs généraux, mais envers les députés. Monsieur le ministre, nous, en tant que maire nous maire à à nous Nous ñu ngi le programme zéro déchet programme nous, nous nous permettre de bénéficier

nekk na aussi programme bu am solo ci sa ministère soulager na aussi nos autorités religieuses loolu aussi ñu ngi la ci félicité bu baax a baax a baax a baax monsieur le ministre. monsieur le ministre waxoon naa commission ma ne la monsieur le ministre seetlu nañ aussi pratique bu am solo boo xam ne sa ministère bi nga koy def muy bësub seet seetal te lu ñu seetlu mooy ci ville lay am te lu baax monsieur le ministre dañ ko war a yaatal bëgg nañ. xeyna nak dina metti trop mais ñu yaatal ko ci capital départemental yi yóbbu ko ba ci commune yi am na solo trop monsieur le ministre ce programme cadre de vie bi am na solo li ma ci seetlu rek mooy programme corniche bi tey corniche bi ni meloon tey boo bu fi jaaree sa xol day sedd te gis nañ ne ministère de l'urbanisme moo porté projet boobu ñu ngi la ci féliciter ci féliciter waa direction de cadre de vie jërëjëf merci beaucoup merci Abbas Fall vous avez